yéen nii man kese. ah kon dama taxaw dama taxaw si alxuraan. Abass. Azu puusal Azu puusal. puusal tuuti oh puusal tuuti. c'est bon yëg na. ah dama bëgg ma yëg si kaw. bu soobee mbokk yi comme ngeen ko gisee le président Ousmane Sonko tey moo ñëwoon nemmeeku Ale. mi ngi le président Ousmane Sonko ñëwoon fi nga xamante ni moo di Walfadjri télé askan wi mu ñëwoon pour euh, benn visite de courtoisie et de solidarité envers la télévision du peuple boo xamante ni un certain Babacar Diagne à la tête du CNRA moom moo jël initiative bu démb couper le signal de Walfadjri alors que ñi ngi doon def li nga xamante ni moom mooy euh, seen liggéey euh, la liberté d'informer lu am la la liberté d'informer est garantie par la Constitution c'est même une exigence et une obligation du Conseil euh, constitutionnel par notre constitution loolu la Walfadjri doon def ñu yàq ko ñu dagg ko et une honte pour la pour li nga xamante ne moom mooy CNRA président Ousmane Sonko mi ngi noonu yéen a ngi xool le dispositif sécuritaire des agents du BIP agent yaa ngi noonu gis nga ni ñu ñëwee serré oto bi ci ginnaaw serré oto bi ci ginnaaw dañoo jël oto bi serré ko ci ginnaaw. Ils sont là. Les jeunes sont sortis nombreux. Les jeunes sont sortis nombreux. Les jeunes sont sortis nombreux. xoolal mi oto gis ngeen ni la police nationale seen blindé yi ñoo bëgg escorter le président Ousmane Sonko te dafa mel ni sax fii nii c'est assez dangereux force de l'ordre yi ñoom ñoo ñëw ñoom ñoo teg ci benn problème boo xamante ne à la liberté de circulation ils sont venus ils sont garés au milieu des milieu de cette foule exceptionnelle exceptionnelle le président Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko ñun bu ñu président Ousmane Sonko mi ngi noonu mi ngi nuyu policier bi ñu ngi nuyu les policiers Ousmane Sonko la askan bi génn fii ci Xaar Yàlla fii ci Walfadjri Ousmane Sonko Ousmane la police est là dispositif bu bëri on dénombre pas moins de quatre cinq six sept véhicules de police ak seeni ay ak seen anti emat ak waa Mbour ak waa ñëpp a ngi fi le président Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko en liesse avec le peuple sénégalais dugaat na ci biir oto bi dugaat na ci biir bi on essaie d'avancer mais il faut le dire le dispositif de la police nationale niñ ko tegee ci yoon bi fii ku ko xool xam fi xatal ku ko xool xam ni ce dispositif là regardez on a dix véhicules de transport d'hommes de tenue de la police nationale accompagnés d'au moins de quatre blindés dont deux anti le président Ousmane Sonko Sonko Sonko Ahari Allah Sonko pour la mémoire de Sidi Lamine Niass pour la liberté Sonko pour la liberté d'expression. We are Sénégal. Nous sommes le Sénégal. Ousmane Sonko. Ousmane Sonko du Sénégal. Xaar Yàlla. Xaar Aujourd'hui, Ousmane Sonko ici à Xaar Yàlla, hommage, en hommage au Mola de Xaar le feu Sidi Lamine Niass Sidi Lamine Niass tey fi mu tëdd leer na président mi ngi nii président mi vous voyez le véhicule de la BIP qui est en train le passage mi ngi noonu mi ngi ne joddu ci on va essayer de se frayer un chemin graoul on est avec le peuple graoul on est avec le peuple le président Ousmane Sonko a ah, xaar yàlla le président Ousmane Sonko doxandu xaar yàlla président Ousmane Sonko fii nii ñëwoon seet si Walfadjri la télé du peuple le média du peuple mi ngi noonu dafa coincé ndax mënul dem agent wu on a le véhicule de la BIP on a le véhicule de la BIP qui refuse de bouger. Le véhicule de la BIP qui refuse de bouger. C'est à limite s'il bloque un le passage. Président Ousmane Sonko, président Ousmane Sonko, président Ousmane Sonko, président Ousmane Sonko. Exceptionnel. devant les caméras du monde.

mooy encadrer le véhicule du président dañ ko bëgg jël en tenaille xoolal ci ginnaaw xoolal ci ginnaaw xoolal ci ginnaaw oto bi bi xoolal ci ginnaaw oto bi bi mi ngi noonu ñëw seere oto président Ousmane Sonko ak oto police yëpp ils se sont mis en branle ce qu'ils veulent c'est bloquer le véhicule du président Ousmane Sonko seen diggante exceptionnel exceptionnel exceptionnel xaar yàlla en ébullition le président Ousmane Sonko mi ngi noonu dugaan na cooto bi mi ngi noonu dugaan cooto bi dugaan bi waaw mi ngi noonu mi ngi noonu la manœuvre sécuritaire le président Ousmane Sonko ñoo progressé ñoo ngi avancé lii ku moom Ndakaaru ku moom Sénégal doxantu baa ngi noonu. le président Ousmane Sonko xale yaa ngi noonu topp ko yaa ngi noonu topp ko biyo biyo mi ngi noonu Sonko la président Ousmane Sonko nit ñaa ngi ci terrasse président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko xaar yàlla en ébullition xaar yàlla en ébullition liesse populaire a ah, xaar yàlla président Ousmane Sonko ñoo ngi progressé ñoo ngi progressé ñoo ngi progressé Ousmane Sonko Ousmane Sonko Ousmane Sonko exceptionnel exceptionnel. mi ngi noonu. xale yaa ngi daw ku nekk a ngi daw pour jox ko loxo ku nekk maa ngi daw pour jox ko loxo la main du président Ousmane Sonko ñu koy jox adiya yi adiya yaa ngi ñëw adiya yaa ngi ñëw yaa ngi koy jox adiya yi ay 1000 ay 2000 ay 5000 oh là là là là oh là là là là